alors jërë ngeen jëf mbokk internet allo Sénégal Serigne Omar Mbacke buñ ko tuddee xel mépp dinañ dem ci jëmm ji waaye bu nee sëtug maam Anta borom dërëm ak ngërëm bëgg na ay sët dëgg la waaye buñ nee sëtug maam Anta xel yëpp dina dem ci jëmm ji ndax wax dëgg yàlla donn na ko ci xam-xam donn na ko ci lu baree baree bari ci xam-xam googu moo tax nag réew mi yëpp jox ko bopp. bëri na ñoo xamante ni jamono ji buñ ubbeekoo ba fàtte li ñu dundoon démb jëmmam ji a tax ndax buñ nee kat borom dërëm ak ngërëm mooy sa mam ubbi nit yaakaar naa du doon lu jafe ci yow. bëri na yoon yum ciy jaar ñu bëri nag nee nañ xalwatu gi moo leen ci doy waaye moom jëmmam ji nee na du ko duggal ku ne dinañ ci waxtaan ak moom waaye dinañ waxtaan ak moom ci actualité am na lu mu fi dundoon lum ci nettali woon Sénégalais yi ñu bëri woon ko ci. dinañ ci waxtaan dinañ waxtaan ak moom ci Ousmane Sonko mi nga xamante ni boobu ba léegi mi ngi ci loxo yi yoon li waral ñu ne mu ngi ci loxo yi yoon ndax mënta génn mënta dugg këram kenn mënta dugg loolu nag kidnapping la wala lu mu doon sëriñ bi dinañ ci waxtaan ak moom ba ci caravane Ousmane Sonko beeg ni mu mujjee dinañ waxtaan ak sëriñ bi ci procès Ousmane sonk aji Sarr bi bi nga xamante ni le premier juin le verdict bi di génn réew mi dañuy faral bu tollee ci xat-xat wala bu ñu bëggee jub lenn rek sëriñ bi dañuy bëgg mu da mu génn ndax yaakaar yee bari ci moom te lu mu wax du ci waxaat du ko waxaat ndax lu mu wax benn yoon la koy wax ñu teg ci suñu bët gis nañ kër yi nga xamante ni ñu ngi koy taal oto Cheikh Baara bi euh, kërug ñi nga xamante ne ñoom ñooy Matar Ba ak ñeneen gis nañ ñu ngi koy taal ba doomu Matar Ba bi siñaale na ni moom moo génnoon di dóor ay bal réel ci kaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon def jëf yooyu. balaa boobu dañuy bàyyi sëriñ Omar Mbacke Balla ay sax mu nuy mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan sëriñ bi Mbacke Balla bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا هادي له ومن يضلل فلا مضل له mbokki réew mi mbokki bitim réew ñu ngi nuyu yéen ñëpp ku ne sotul ak sant di jiite ci nuyu bi ak ziar bi ak ziar bi sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi mm, toog jotaay Seexul Xaddim di ko ñaan suñu borom kàttanal ko ba yéen ji mu am liggéey ko lislaam lu kawe ñootam mbokk mu baax ma ci Darou Salam bi Serigne Sidi Mbacke toogaay jotaay maam Cheikh Anta ak sëñ Abo Mbacke eh, toogaay jotaay sëñ Mouhamadou Moudou Mamoun ak mboolem waa Darou Salam rek ak mboolem taalibi rek rek di ndokkilit sëñ Ablaye Dia ci bis boobu ñu jigoon ci Darou Salam gi nga xam ne na fi liggéey bu am am solo muy jumaa jooju mu fa doon yeesal defar ak mboolem taalibi rek ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm nga xam ne ni mu koy defee si jumaa ji noonu la defee ci ay daay alxuraan Euh, réew mi moom dama jàpp ne bu ñëpp bu bu ñu amoon ñu mel ne moom ñu bu ñu mel ne moom bu ñu bëri woon rek mm-hmm. euh, lislaam mën naa gën a euh, yokk ci ci ci réew mi mm-hmm. ndax ñu bëri léeg dañu am yéene ji waaye duñu am kon bu ñu amee kuy dox ci loolu ak ñi xam ne sax xamuñu leen mm-hmm. ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm ñaan ñooñ moom yàlla yàlla la ñeen bàyyee ndax moo ne woon naa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafisun damay wax ne suñu borom moom buy aar buy aar biteel day aar day aar la war biteel ba. kon ñooñu moom foofu la ñuy mën a mën a mën kii ñaanal ñi nga xam ñoo ne bitim réew te ne si jafe-jafe. Mhm. suñ borom teggi leen ko ak ñi si mi ne si jafe-jafe. Mhm. Eh, loolu la nañ ne nañ nuyoo noonu rek bu defee comme waxtu wi xaw naa xaw naa guddi. Eh, nga xool yi ëpp solo rek ñu waxtaan si. Mhm. Eh, liñ si xam ñu tontu si incha allah jërëjëf. man li may wax mooy réew mi bu amoon Serigne Omar yu mel ni yow ñu bari mën naa ni sax réew mi dina neex waaye ñàkk dina fi jóge may jaar foofu dugg ci ubbeeku yi nga xamante ni yaa ngi ko jëlee ci say maamaati maam mu wàcc ba ci yow ngay ubbi nit ci fanam ci ànd fanam bu ne ci fànn bu ne waaye li nga xamante ni moom mooy xalwatu damay dégg ñu moo ci gën a gaaw doo ko duggal ko ne sëñ bi. waaw jërëjëf suñu Lamine comme ko waxee maanaam nit ku ne moom war naa góorgóorlu ba ñaari lépp lu mu soxla rek man man kaa am mm-hmm. ndax as góor moom ñàkk ko warul ñàkk léeg-léeg damay damay wax ne. Eh, ki nga xam ne daanaka ay ay ay ay ay ay ay ay famille famille ñoo la yaakaar mm-hmm. kooku boo amul rek day xaw a métti mm-hmm. waaye bu dee wàllum ama moom li ma comme ni nga ko waxee sànq rek am na si am na si yoo xam ne moom nekk na yoo xam ne doo ko defal nit mukk muy ñàkk. nit bu ñàkkoon ba di am lu mu jafe lu mu lekk sax. Mm-hmm. boo ko defee nit moom ba mu tàmbali ba jëfandikoo ko rek balaa balaa fan balaa fan yu néew néew. da nga moom jëmm ji dana xam ne eh, lii mu jëfandikoo wut nag bu ñëkk. ndax yàlla dina ko dimbali ci wàllum ubbeeku moom lu lu lu kiimaani macha allah. ak lu mu tëju tëju tëju tëju. bu tëj woon ba am problème lu mu lekk laa ne bu ko jëfandikoo balaa ñetti fan moom ñàkk googu fa la yem. Mm-hmm. waaw waaye bu continuer la mu war a continuer muy sangar yi mel noonu ñàkk moom doo ko jegeeti mukk. Mm-hmm. waaw loolu moom lu am la ñi nga xam ne xam nañ. Euh, waqan ak yu mel noonu euh, loolu du leen jaaxal euh, waaye nag moom dafa da si bëri façon daal yoo xam ne comme ni ko juñee léegi it am na si yoo xam ne wàllu la moom bokk na ci li gën waaye nag xalwatu moom dafa nekk loo xam ne du ñëpp ko mën a am ndax xam ne da ngay tëj fukki fan ak juróom gën ka gën fan léeg-léeg du ko mën am waaye daal ñaari ku ko mën a am it moo gën waaw nekk na xalwatu yoo xam ne moom nit lu mu sonn sonn. Mm-hmm. incha allah boo ko defee tàggoog ñàkkam. ndax looy li ñu ëppal solo mooy fexe ba ñëpp am. Mm-hmm. te nekk am amin amin bu dagan. Mm-hmm. te nekk amin bu dagan ndax waajur yi sonn nañ ñi ngi daw ndax njaboot dëkk bi xaw naa metti ci ñenn ñi. waaye ku yàlla daal def lool rek moo ci yitte. ba ba bañ am tur yi tur waajur jigéen wi ba xam sa tabian xam sa roxaan incha allah moom da nga mën am alal ci am yéen bu bu bu gàtt eh, te nekk lu dëpp ak sunna mhm. li nga donn ci say maam bari na rawatina yaatu gi ginnaaw bari na ñoo xamante ni sa ginnaaw gi la ñuy daw làqoo ma bëgg dugg ci kaaraange ndax koo làq wax dëgg yàlla bu aaruwul xaw ma koy aaru. waaw jërëjëf siñ siñ Lamine ci euh, laaj boobu waaw kaaraange ne moom nekk na loo xam ne moom lu mu ñàkk ci doomu aadama la. Euh, ndax euh, ma ñi dañ naan wax ne ku ku mucc rek mus mm-hmm. li leen gis nit koo xam ne day ne ci bërëb di liggéey waaye yàlla dafa koy dimbali lool euh, am am bi yomb lool waaye nag day xaw a sàggane boppam ci léeg-léeg ci ci fànn yu bari surtout ci wàllum kaaraange nga xam ne ñooñu léeg-léeg bu ñu xasee ba taxaw rek pour léeg-léeg dimbali day xaw a jafe mm-hmm. moo tax may ñaax nit ñi képp koo xam ne daal yàlla mi ngi mi ngi dimbali donte amoo dara sax góorgóorlu ci kaaraange ndax nekk na jamono boo xam xeex bi dafa xaw bëri léeg-léeg sonn ci moom waaye euh, du yem sax ci ci ci yàq rek mu yem si làmmiñ mm-hmm. léegi dañ si boy di jëf mooy euh, dem si ñi nga xam ne yàlla euh, amuñu dara si ragal yàlla mm-hmm. am sa tur yàq la tëj sa wërsëg mm-hmm. xam nga nit it mm, ñaari moom te nit nekk na loo nit wërsëg nekk na loo xam ne luñ mën a tëj la ci doomu aadama ba du amati dara léeg-léeg gis kuy am du faratu as ne waaye mbirim day jékki rek taxaw ñaari ñu ëpp ci ñoom boo xoolee seen mbir rek da xam ne kii def def buñ ko def la bu bu dee teel nañu am kaaraange rek yàlla dañ leen dimbali am nag lu ma daan joxe ku ko mën di ko def it baax na mm-hmm. muy baratu bismillahi ruuxu bi tadat ilaa kasu asraari baati bi intawat laxad axsant bi ismika daahiyan bi haajin muhaajin jalaha fata jarjarat mm-hmm. bi samsamin tartamin bi tarsin mutarsamin bi mexlaasi mexlaasi jalaha ohmidat mm-hmm. moom nekk na loo xam ne ku ko mën def subaa ngoon yàlla dana dimbali ci aar la te loo wuti di nga am te daf lay aar sa njaboot aar la jaw yow. kon ku ko mën di defit naka def waaye kaaraange moom lu sooy am rek doyut mm, waaw. Mhm. Mhm. mais sëñ bi am na nopp goo fi yoroon goo daan liggéey noobu jooni jooni goo xamante ni àpp gi ngay jox nit ki balaa moo yegg mu gis résultat ci nopp gi. waaw nopp moom nekk na loo xam ne comme ni ma la ko waxee suñu waxtaan wi wala mujj rek. bu dee lu dagan la moom ñaari du si def vingt-quatre mu jàppandi mm-hmm. waaw ndax bu dee lu baax nga si moo ko tax a jóg muy wàllu góor ci maanaam ab sëy wala famille yoo xam ne déggoowuñ nga bëgg ñu déggoo mm-hmm. yàlla da si jàpp ci yooyu bu baax a baax nga xam ne ñaari doo ko defal nit mu ko vingt-quatre lu seen aaju faju mm-hmm. te moom it waaye li ñu def mooy ki nga xam ne maanaam caaxaan a ko tax a jóg yooyu ñaari duñu si nangoo def ñaan ndax euh, dafa nekk ñaar yoo xam ne ñaari foo ko defee rek day am résultat te dañu xaw a ragal àq lool ndax léeg-léeg mën ngaa def nit ki ma góor mën naa ñëw wala jigéen mën naa ñëw ne la kee sama soxna yu mel noonu nga defal ko ko te xam ne léeg-léeg bàkkaar bi yow sëriñ bi doo si kii moo tax ñu koy wattandiku waaye moom bu dee famille la yu mel noonu moom euh, jubóor gi nekk si nit moom lu mën a nekk la tar yomb incha allah mhm. waaye Mbacke Balla da nga daan ngémb mbër bu ma nee ngémb mbër doo waxuma ca làmb ja waaye ca géew néeg ba muy wàllum kàttan néew kàttan yaa ci ay yaa ci mën jamono ji du samay wax nag. waaw jërëjëf loolu moom bari na ñuy seetal yu mel noonu loolu macha allah. Eh, bu dee wàllum jafe-jafe kàttan moom am na garab yoo xam ne li may wax ne sañ nañ ko jox mag mu am téeméeri at. Mm-hmm. dana ko delloo ci ndawam man ne lu am ñaar juróom. Eh, ci kàttan macha allah. te nekk na garab yoo xam ne boo ko jëlee bu jeexee rek traitement bu njëkk du jëlaat. Mm-hmm. wala boog mën naa bàyyi lu yàgg-yàgg. Mm-hmm. ndax dafa dafa bu fekkee yàlla daa def nga am tawat yeneen tawat yi mm-hmm. maanaam daf koy traité. waaw moom nekk na garab yu am solo lool te it mm, mag mën na kaa jël ndaw mën na kaa jël. Mm-hmm. koomu jabit mën na kaa jël moom daal amul leen lu mën a yàq ci dundu doomu aadama te loo am am solo la. moom macha allah daal moom. Mm-hmm. waaye lu am solo li ma bëgg ñu tëjee ko doog a dem ci actualité mooy loxo bu bënn. bari na ñoo xamante ni dañuy am ay millions mais du dajaloo seen loxo. dañuy dépenser rek. waaw loolu du ñu waaw li ko waral bëri na lool léeg nit mën a yor milliard. def ko si projet mu yàqu. loolu da day am yooyu yëpp nag dafa bëri loo koy gàllankoor. léeg cat mën na kaa def ci doomu aadama bi. Mhm. rab it mën na kaa def liggéey mën na kaa def. Mhm. waaye loxo benn moom bu ma la wax li koy def yëpp li koy sabab bu mu fa jóg. waaye ku yàlla natu mu dal la daal euh, bañ xool ko ba xam li ko sabab. Mhm. incha ñetti fan moom moo fa la yem mu taaxale ko ak mu taaxale ndax léeg-léeg nit dana góorgóor di amit waaye am am bi du dajee waaye yu yëpp nag day nekk ay gàllankoor yoo xam ne day nekk ci nit ki waaye lu mu si mënti nekk daal boo xoolee ba xam ay mbiram rek mm-hmm. day daal di mën a yomb incha allah mm-hmm. Mm-hmm. lii nag laay faral di wax naan Serigne Omar Mbacke ñàkk ko am wóorul waaye ñàkk koo xam a gën a wóor a di lépp ndax borom xam-xam la goo xamante ne c'est certifié ay boroom xam-xam kaamil ñoo ko tiim wax ko ba xam ni kii boroom xam-xam la def ko nii mu mel nag tax aajo bu mu song daan ko aajo bu mu teg loxo mu barkel ndax ku ay mag kilifa ñoo xamante ni borom barke lañ du ku ñu def nii nga mel yaakaar naa boo boo doonul borom barke bay barkelle xaw ma ku barkelle ci la ñuy jàll ñëw ci actualité njëkkee ko ci sama waa ji Ousmane Sonko wala sax ci sa waa ji Ousmane Sonko gis nañ xat-xat yi ma ne jamono ji ba statut yëpp foo dugg fri Ousmane Sonko ngay gis ndax. xaj nañ ko liberté instant bii nii. waaw jërëjëf suñu Lamine xar-xar yooyu du mën a ñàkk mm-hmm. ndax suñu borom ñaari bu la bëgg a rek faaw am fu la jaarale ah. ndax li muy xëcc it nekkul lu lu oyof. waaye na muñ. Mm-hmm. te góorgóorlu. moom Ousmane Sonko moom Ousmane xam ne lépp lépp dana baax. Mm-hmm. réew mi nag nekk na réew moo xam ne it xam naa lu lu jar a toog waxtaanee la ko la. ndax bëri na yoo xam daal lu ñu war a mën a waxtaanee la. ndax dama si teg sama bët. Euh, mu nekk jëf yoo xam ne xaw ma nag yoon ko may wala wala xaw ma nag yoon ko may wala yoon muyu ko daal waaye lu ma lu ma xaw a jaaxal la mm-hmm. te lu ma métti la surtout sama mbokki ñi nga xam ne ñoo yor moto cag-cag yu noonu mm-hmm. léeg damay génn su ma def damay def su ma génne gis ñenn si suñ mbokk yi takk der yi takk gum si tëli bi mm-hmm. ñaari moto bu jaar ñu arrêté la tey la fa yenn yenn yenn la fa ñoo xam ne si ñooñu loolu lañ yaakaar joxe dépasse dundu am na ñoo xam ne si lañ si lañuy liggéey di fay moto yooyu comme dëkk bi amul liggéey état bi xaj na mi ngi liggéey waaye côté boobu moom xaw na fa xaw na fa des tuuti muy wàllum ndaw ñu am liggéey comme bu dee ndaw ñi nag am nañ jom ba góorgóorlu ba am seeni moto nañu bàyyi ñu liggéey rek. damay gis loolu lu bëri bëri muy am muy nekk image bu xaw a ñaaw ci Sénégal gis bu rombee tali bi da ngay gis ñu ñu takk guum moto bu jaar rek ñu taxaw loola loolu moom maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax nag xaw ma nag lu sabab loolu waaye lu mu si mënti nekk daal nañ ko waxtaanee te ñi nga xam bi ñi ngi xam ne état moo leen ngànk it eh, ñu gën a góorgóorlu duwaañ ak ñëpp daal ndax ñu ëpp ci ñoom fonk ñu seen liggéey mm-hmm. waa ñaari ñu ëpp ci ñoom lu neex la def mm-hmm. li tax ma wax loolu mooy dafa am mu ngi bëgg a def ay at ci gannaaw um, sama benn oto bu ñu duwaañ duwaañ eh, njaareem mm-hmm. eh, li mu wax mi ngi bëgg a diire chauffeur bi laay yónnoon mu ñëw ne jàpp nañ ko si la fa demee fekk fa mbooloo mu bëri lool ñu soxla ko moom moom duwaañ ba fa ne woon de loolu loolu 2018 la woon. 2018 la woon ba ma demee fekk fa mbooloo mi ma laaj ci ñu ne mi ngi si biir ma dugg si biir fekk ko waaye maa ngi ko fekk mu toog di wax ak jigéen téléphone. te ñoo xam ne mm, huit ba ña fa toog ba midi. toog lu dul nga ne si biir di wax ay jigéen téléphone yu ñàkk fay doy mën naa ñàkk. yooyu dafa am day am ci réew mi. ci maire yeeg mm, moom daal. réew mi nañ nañ nañ si gën a def waxtaan. defee ñoom ñu gën a bàyyi xel gën a fonk askan wi. waaw gendarmerie rek police ak ñëpp daal. ñu gën a góorgóorlu ci askan wi. ñoom it comme ordre ndigal la ñuy jëfee. bu leen joxee ndigal loo xam ne it loo gaañ luy gaañ askan wi la. buñ ko mënee wat ni ko mooy li gën. waaw ndax koo xam ne boo ko tiiree bal mu faatoo sa sa sarum nga ko def wala sarak yooyu ñu si gën a bàyyi xel ñiy joxe ordre yi it ñuy gën a bàyyi xel askan wi. réew mi moom li ñu fa mën a wax bëri na lool. ma Balla ci ordre yooyu laay ñëw ndax ki nga xamante moom mooy Ousmane Sonko caravane de la liberté bi mu doon def mujj koo yeggale ndax dañ ne ko coppet yóbbu ca Ndakaaru wàcce ko këram. Mhm. waaw loolu moom mu ñu dara lu dul di ko ñaawlu waaye ñi def loolu xëy na am na fu ñu ko teg ñoom it ndax bu fekkee ne Ousmane Sonko dafa jógee fa mu jógee di ñëw Dakar. ba bakkan jot see rot mm-hmm. te am xëñ na bu ñëwoon ba Dakar te arrêté wuñ loolu rek mën naa jur leneen it ñoom mënuñ def dara loolu fexe mu ni mu ñëwee Dakar mm-hmm. bu loolu lañ si jublu de moom lu baax la mm-hmm. bu dee nag liñ si jublu ngir xoqatal ko rek moom loolu lañ koy ñaawlu waaye ñaan ko Ousmane Sonko jàmm ñaan ci réew mi jàmm moom moom ay mbiram xam naa du mën yomb waaye na gën a góorgóorlu comme li ma ko waxee léegi rek te xam ne yàlla moom képp ku mu ne rek dana teg jafe-jafe waaye bi mu génnee kàddu yu mu yëkkati mel na ni ndogal googu ci moom la jóge waaw comme li mu wax léegi rek bu fekkee ne moom xañ na comme ñoom yàlla def na ñoo ñoo jiite réew mi. bu dee gis nañ loo xam ne xañ na lii dul gën. boobaa bu dee loolu li si jublu rek benn muskila mhm. ak bu fekkee ne dañ si jublu yàq rek ak tuutal doomu aadama moom loolu mënuñ daal lu ñaaw ko. Mhm. te bu fekkee ne loolu lañ si jublu euh, ji ñu def loolu ndax ñaari moom suñu borom. Mhm. képp ku jéem a am yéene toroxal doomu aadama rek dafa dafa la yëkkati. loolu ñu ñu bàyyi si xel. ñaan si réew mi jàmm ñaan bitim réew ñu ne bitim réew jàmm di nuyu mboolem. sëñ bi di nga wax ci procès bi la premier ci la ci la ci la résultat ci la daj dëpp gi ak oto yi ñu taal oto ku mel ni Serigne Bara Ndiaye ak yooyu noonu. waaw loolu di ko méttilu rek di ko méttilu ndax góorgóorlu ba am sa oto moom oto xam nga ne jërul benn million. Mm-hmm. ndax oto mi gis ñu taal yëpp ñu taal ko ëpp amul benn bu si jar 10 millions. ëpp na loolu yàq gi daal dañ ko xaw a wat ko ndax. xaw ma ku taal taal ko xaw ma ku waral lool ko taal. Matar Ba gis nañ tamit moom it euh, commencé nañ koo laal. waaw loolu yëpp daal mënuñu dara di ko ñaawlu rek waaw ndax yàq moom wax dëgg yàlla kenn àndu si ndax ku góorgóorlu ba am otoom wala góorgóorlu ba am këram nga dem taal ko it loolu moom wax dëgg yàlla rafetluñu ko képp koy def it bu ko mënee bàyyi mooy li gën ndax jàpp naa ne euh, bëggul ku bëggul ko def kër bàyyam rek bu ko def kër bàyyi jàmbur ndax ñaar yi damay wax ne lépp lu bëggul ku ko def rek bu ko def kenn Serigne Touba day jàngaloo ci nax maanaam lépp loo xam ne bu la ko ni defee mu metti la rek boo ko def kenn xamal ne boo ko defee kooku yi noonu la koy méttee mm-hmm. bu ñëpp maasi woon dégg wax jooju rek dégg ko noonu réew mi dana am jàmmoo defee lépp loo bëgg ñu def ko sa baay rek bu ko def baay jàmbur lépp loo bëgg ñu def loo ko it bu ko def kenn waaw procès bi le premier résultat bi waaw résultat bi moom daanaka euh, daanaka mën nañu wax ne wàcc na ba noppi ah. ndax ñu ëpp ci askan wi ñort nañ dañuy jàpp Ousmane Sonko yu mel noonu mm-hmm. ñaan yàlla rek yàlla musul ko rek lu si mënti am daal ñaan ko ñaan na ko yàlla rek mais lan ngay wax ci Adji Sarr mi nga xamante ni boobu ba léegi noppiwul ndax mi ngi tontonteeg Sonko mi ngi dem ba sax di yëkkati kàddu yoo xamante ni ku ko dégg nag dar sa gémmi loolu dégg na kàddu yooyu mooy muy ñu dalu lu ñaaw ko ndax ku dee Ousmane Sonko wax di kilifa la junni junni nit yaakaar ko euh, te mu waxee moom xaw naa ñaaw ñaaw na loolu wax dëgg ci dégg-dégg moom it ñu ngi koy ñaan mu gën a wat ni ko wax ji euh, moom mbir mi bu mënee jéggale sax muy li gën. Adji Sarr jéggale Euh, donte moo xam mu tooñ wala tooñut ndax loolu dama si màndu mm-hmm. euh, ndax euh, ni ñu ko Alxuraan waxee rek Alxuraan Alxuraan dañoo jàngal ne bu nit ñëwee ne dañoo àgg sama kaw mm-hmm. war naa am ñeenti seede mm-hmm. bu amee ñaar matul bu amee ñaar war a àtte bu amee ñett war a àtte ñeent mooy seede te ñeent it ne nekk ñeent yi maanaam bokk bokkuñ fu ñu jógee kon loolu ñun ñuy wax ñëpp dañoo baax di wax rek waaye daanaka xamuñu si lu ñu leer kon ñaanu ko moom soxna Adji Sarr moomu bu li mu wax dëgg la mu jéggale bu dee du dëgg mu tuub te jé te bàyyi fexe coow lépp yam fi daal Ousmane Sonko it wax dëgg yàlla nekk na koo xam ne ku am ci mu yaakaar la ndax man jàpp nañ ko jub la jàpp nañ ko jub la ndax ku jaar fa mu jaar muy imp boobu su mujj mën nañ fa la ne woon mm-hmm. am na fa lu mat fukki at ak juróom kooku bu doon bu jëmam rek bu ko ñoroon rek mm-hmm. daanaka du mën naa ne milliardaire la mm-hmm. ndax fa mu jaar daanaka ay milliards ñi ñoo fa jaar mi ngoog waaw xam naa ba da nga si morom bëri na ñoo xam ne bu ñu fa newoon dañu a jël. Mhm. dem toog seen njaboot. waaye moom yàlla alhamdulilah yàlla def na jaar na fa at yooyu lu ma fukki at ak juróom xam nga du caaxaan. ne ci bërëb kenn mën laa génneel ne jël nga fi benn dërëm. kooku moom ak wax dëgg yàlla ak ko jàmm ñaanal ñi mel moom jàmm rek ndax réew mi bëri na ñu mel ne ñu mel ne ñoom. Mhm. am na ñoo xam ne. mel ni Sonko. waaw bëri na ñu mel ni Sonko ñoo xam ne alal jàmbur euh, amuñu si benn yitte waaw mbégte kontantement waaye tamit ak fierte la ñuy am heure bu ñu sa jëmm ju tedd ji ndax li may wax naan Serigne Omar amoon ñaar yu mel ni moom ci réew mi wala ñett rek defaru gi day commencé am waaye tamit ñëpp dinañ xam ni loxoom mi ngi ci réew mi ndax boroom xam-xam la goo xamante ni toogul rek ne dama am xam-xam wala diwee sama maam mi ngi jëf réew mi di ci teg bët seeni bët te mi ngi jëf di dugal loxoom bu baax a baax ci réew mi Mbacke Balla lan ngay tàggatoowe jërëjëf di leen sant di leen gërëm ñaanal mboolem daara alxuraan yi fu ñu mënti nekk rek moo xam yi nga xam ne ñoo tënku ci man ak yi mboolem daara alxuraan fu mu nekk ci réew bitim réew daal ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm ñaanal waajuri ndongo yi ñi nga xam ne ñoo am yitte ak yéene seen doom jàng alxuraan di ñaawlu it coow lu muy dugg fan yee ci benn sama mbokk mbokk la ko mën a ndax ñu xëy na ñu bokk mbàkke gi mm-hmm. muy suñu xarit mbàkke la xawma mm-hmm. dégg yooyu ñu ko teg moom it di ko masaw bu fekkee ne moo def jëf ji daal di ko ñaawlu di masaw it ñi nga xam jëf ji dal seen kaw mm-hmm. euh, te may wax ne waajur yi loolu bu mu tax ñu tey seen njaboot yi nañu yóbbu ci daara alxuraan njàng alxuraan ndax alxuraan moom nekk na loo xam ne muy ñëkk muy mujj boo ko defee di di leen masawu nag wax dëgg yàlla ndax métti na lool bu dee li wax lu am la daal mhm. ñu mu ko it du ma wax ne am na tam mhm. comme mutuma seede it mhm. ñaan rek laa laa si man defee ñaan bu fekkee nit moom moo def loolu it mu gën a bàyyi xel ne xam ne loolu li mën a yàq bëri na ndax lool dana tax ñu bari xañ na duñ mën a jël seen i doom di leen yóbbu si daara rek yu mel noonu ndax gars yi ñu si ëpp ci nit ñi fañ dëkkal daara dafa xaw a kiimaan yi maa ngi lay nettali fan yee passé at lu man am man at léegi am benn mbokk mu mën a jàngal alxuraan Pikine ci daara ja mu nekkoon xale bu sawar ma na ba sa yaqulu dem ba nga wàcc léegi mu wàcc waajur mu jigéen ko dañ la dugal école nga jàng français ba ma laaj ko mu ne ma dañ ma bëgg a dugal école français ndax sama waajur dane ma su ma toppee français damay xawat damay tardé nga xam ne kooku ñàkk xam moo tax mu wax loolu Sénégal nga xam Sénégal ñaata milliardaire nga fi gis ñoo xam ne jaruñu école ñëpp ñëpp ay ndongo daara lañ ñoo jël ñu jar sa école ya kooku xëy na xele mu suufi la te it bëri na bëri na si bëri na ñoo xam ne jàpp nañ seen doom bu nee ci daara ji rek day xaw a day tardé te fekk na kooku loolu moo koy dimbali ndax Sénégal boo doon lim milliardaires yi fi jógee si si si école moom ñi jógee si daara yaa ëpp kon yàlla day wane fa bàkke alxuraan rek bu defee mbokk yi gën see góorgóorlu te ñu xam ne alxuraan daal muy lépp jërëjëf mu ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal dootuñ leen ko présenté ndax li mu jëf ci réew mi li mu wax ci réew mi heure bu waxee buñ ci yeggee rek ne est waaye heure bu jëfee ñu ni cum ku maam Cheikh Anta nekk sa maam boo mënee boo jëfee nii rek nga mën a jëfee moo tax réew mi jox ko bopp ci xam ci asraar waaye ci yar ak ci maandu tax na nag réew mi ñu baree bare baree bare bari gëm ñaan yàlla tax na réew mi ñu baree baree bari gëm ni asraar lu am la mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf